Thank you. Thank you. bienvenue chers téléspectateurs de la télévision Futur Média dal leen jàmm seen émission bii di réplique la réplique nekk émission boo xam ne émission la boo xam ne dañ ciy dalal ay politiciens da ci dalal li nga xam ne mooy ay intellectuels fas yéene waxtaan ak ñoom ci doxalinu réew mi tey nag ma fas yéene dalal koo xam ne nekkoon na membre ci PDS léegi nag mi ngi ci beneen parti bu ñuy wooyee mbooloom wadd ñu koy wooyee Pape Samba Mboup ngeen tàcc ko bu baax a baax mu dugg si. maaleykum monsieur Pape Samba Mboup. je vous en ngeen tàcc ko bu baax a baax a baax. comme ni ma leen ko waxee émission réplique émission la boo xam ne bu ñu xëyee waxal la nga gont tontu kon Pape Samba Mboup la ñuy bàyyi mu nuyoo d' abord monsieur Pape Samba Mboup nga nuyoo ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan si émission réplique. asalaamaaleykum euh, waa Sénégal asalaamaaleykum waa àddina ku ci nekk ñu ngi lay nuyu sa ak sa sant di rafet le plateau bi nga xam ni dañ ma ko wax rek la ma jàppoon dama ko bàyyi na ma daw ñëw rawatina nag ma fekk la fii euh, ngay journaliste boo xam ne kenn dootu la présenté euh, may wekk yow ay kàddu ci plateau dina ma neex trop euh, maa ngi lay fay. merci beaucoup pour le respect monsieur Pape Samba Mboup ñu lay gërëm bu baax di wax ne naka nga gisee atmosphère politique gu Sénégal jamono yu ñu toll naka nga gisee politique gu Sénégal. bon politique gu Sénégal dafa jaxasoo jaxasoo bi mooy ñu bëri xamatuñu fu ñu jëm dañuy wii ñii jaar ne ñuy jaar gos kenn xamatu fu ñu jëm. mais digg-digg politique jugawoon na fi bu yàgg kon tey bu ñu indi indilaatam tey sunu président euh, maître Abdoulaye Wade euh, li nga doon gis ci moom mënatoo ko gis léegi léegi lu waaye neex lay politiquer lu waay neex lay def mais pour pourquoi pourquoi gisatuñ la PDS nga dem créer beneen tuddee ko mbooloom Wade parce que boo nee Wade PDS ngay wax mais pourquoi mbooloom Wade waaw xam nga maître Abdoulaye Wade ñu ko génnee ci ñun maître Abdoulaye Wade dafa bokk ci ñun nonoo yàgg ak moom kon lépp lu ñuy def dinañ ci dinañ ci dinañ ko ci boole mais kenn rek moo tax mënuñoo bokk ci moom mais ma dikka ñaan mënuñoo bokk ci moom ndax yii muy def di leew leewal ak leem-leemal di def autour di pot yooyu yëpp bëggu de secrétaire général parti bi rek moo ko ñor. ah bon si. loolu déclaration la wala annonce la. waaye yow loo ko jàppee yow. waaw yow laay laaj yow laay yow yow laay laaj. parce que ne moo bëgg a nekk te maître Ablaye Wade nekk secrétaire général ma man loolu dafa may bëgg a jaaxal. non yow xam nga ni 2019 euh, euh, euh, Karim Wade du du du du du ku la wax loolu yow. non mais mais dañ ci am ay ay ressources yu leer. du kenn kenn kenn kenn ku dul ma di gañaa. yooyu yooyu mooy def yooyu yëpp moom la. doo taxaw si ginnaaw nga mais quand même. ah mais émission sérieuse quand même. allez-y. du kenn moom rek la. Mhm. yii muy def di nekk euh, assemblée nationale yooyu yëpp yëpp di def autour di pour bëggul lu dul lu dul doon secrétaire général parti bi pour bu fi Karim poussé moom mu mën a toog. loolu nga gis daal man mais loolu moom. man moom personnellement li ma gis yaakaar naa mooy avis sénégalais yëpp lu ñu gis ñun ñëpp moo di yow Pape Samba Mboup da nga ànd ak far Farba Senghor parce que tout simplement jiital gi ñu jiital Karim wadd moo leen dérangé mais maître Madické Niang mi nga xam ne moom nga def cible teg ko choc. dañu bëggoon a xam yéen ñaar seen diggante lan moo ko indi dëgg-dëgg parce que waxagoo ko. lu nu lu nu ñàkk ci maître Ablaye Wade maître Madické Niang moo koy def moom ak Omar Sarr man du romb foofu di def ay yiy gos. gis nañ ku mel ni Habib Sy génn na parti bi. Mhm. ni mel ni Aliou Sow na. Diagne Fada Diagne Fada ñoom ñëpp génn nañu. mais fo euh, euh, mais mais yëpp pour lan. du kenn ku dul euh, euh, euh, Madické Niang nekk ci nopp paa bi dem na ba mu gi gisatul kenn ku dul Madické Niang loo wax nit non mais pour lan mais mais tubaab moo ne arrière reculer pour mieux sauter foog ñu génn taxawa am suñu taxawaay am xam carrément bu ñu yëkkatee suñu tànk fan lañ koy teg. nu nga gisee politique mais ñun kenn mënuñoo génne ci maître Abdoulaye Wade ambition politique yéen. muy mooy fexe ba fii nu bëgg a teg fii nu teg réew mi ñu jëlee ko fa teg ko ci ay loxo yu leer teg ko ci ay loxo yu wóor.

Sénégal mooy fexe ba ñëpp di xàccandoo di doorandoo fexe ba teg structure yëpp di dox fexe ba réew mi di nu ko nu sa li nga soxla woon réew mi pour réew mi mën a avancer. man moom personnellement daa man d'accord ma ak yow man xam ma jàpp man dama jàpp la yéen da ngeen bëgg buzz pour man yow ak Farba Senghor buzz ngeen bëgg. Euh, nga baal ma bu ngeen demee di perdre ah. parti parti kenn xamu ko déjà yéen élection yi amoo leen dara zéro député ba pare ban représentativité ngeen am ci réew mi. mais mais ñaata nit ñoo demal élection te amuñu dara. ah kon lu ñëpp def rek baax moo gën du man kese. Euh, ku baax bu fekkee da nga maa invité di ma xas wala di ma indil ay problème dama koy wax. non xasuma la dañuy euh, non non dégg non mais dama lay expliquer man doo ma woo ba sa plateau di ma indil ay ñol fi teg loolu dafa jeex takk. waaw bu jeexee nag kon tey lay tàmbaliwaat nga toog déglu ma. waaw ah, mais da ngay wax loo xam ne loo xam ne muy suñu projet politique la ñu avancé. mais pourquoi ngay jóg taxaw ma ah, mais mais da wax loo xam ne dafa raisonnable mais bu ma dugal ci code yooyu. quest xam ne moom nga defoon. la président Macky Sall da woo di laaj xaalis pour mën a wéet féet ci moom enregistrement boobu loo ci xam. yow xanaa xamee woo sama woo sama baat fi may waxee woo ko ñu jëm jël keneen indi ko enregistré ko yow xamee woo sama mais yow la nga déglu at nii may waxee est-ce benn la. <laughs> Pape Samba loolu kay ñiy seetaan xanaa ñoo koy wax. Euh, ku baax euh, pour man laaj ma leneen loo xam ne moo ma gën a yitteel ci askan wi. xam nga moo gën nga may laaj loolu. toogee ba léegi posé gu ma la question da ngay tourner autour du pot. xam nga on peut tromper quelques heures pendant quelque temps mais on ne pas tromper tout monde tout temps mën nga nax ñenn yenn saa mais mënoo dëkk ndax ñëpp. mais kon yow daal da nga jàpp ni kon man damaa ñëw pour topp. loolu la sénégalais yëpp jàpp dañoo jàpp ne yéen. mais dafa da ngeen di wone euh, euh, opposition. mais ku baax da ngay xool ba baax nan ngay wax at man. Euh, non dama lay expliquer. monsieur Mbuub ak Moussa Ndiaye ci bokk yam. maa ngi lay man xam naa ne maa ngi lay gaañ mais xam naa ne maa ngi lay gaañ. ma nga xam naa ne nag. dese na ma ay questions yu ma la war a poser. mais xoolal bu baax lu may to lu may laaj. la régie tonton Mag s'il vous plaît. kay bu fekkee da ngeen ma teg si émission bi te amul sécurité da ngeen ma ko teel a wax ngeen bàyyi ma jeexal sama émission ci jàmm léegi yow monsieur Pape Samba Mboup question ma lay posé mooy Madické Niang mi tax ngay walti walti Madické Niang gauche Madické Niang droite est-ce que Madické Niang bu toogoon ci plateau lii ngay wax di nga ko wax. waaw mais tu te man xanaa man du ma góor mais man lan laa ci réew mi waxuma Madické Niang mais yow boo taxawoon ma li ma bëgg wax ma wax ko. Euh, Pape Samba Mboup mais mais est-ce xam nga ne boo taxawoon li ma bëgg a wax ma Madické Niang. waaw ko xam nga.